loolu nag moo doonoon màggalu Tuuba 1961 muy image yu doy keemaan yu am solo ñu fàttaliku bu baax jëmm ju tedd ji di Cheikh Mohamad Fadal Mbacke moom Cheikhul Khadim ñaan sunu boroom doolu yokk leeram taasuñ ci barkeem bu baax a baax di ko ñaanal njabootu Cheikhul Khadim yam fa fekk ak ñak fa fekk ñëpp ba tey nag kon ngir fàttaliku Cheikh Mohamad Fadal ci weer wu tedd wi nga xam ni moom la nekk muy weeram di weeru jullit yëpp di rajab ñu indil leen nag waxtaan woo xam ni defoon nag ci li sababoon sëriñ bi seq ak bi buñ ci jógee itam daan leen indil beneen jataay boo xam ne da ko seqoon ak ay journaliste français buñ ca jogee indil leen itam ay waxtaan yoo xam ne defoon na ko ci jumaa Tuubaa kon ñu déglu seen fàllu. fekk na booba nekk na si waaye teewul boobu dafa bëgg dem rek li ñu ci bu jàmm boroomam am na fa yenti weer la fa am képp ñu laajte ñu bi ñu si ko fa fekk na moom boo boobu loolu na siiw jëm daal moom boobu moom te jox si sa dëgg diggante moom tubaab bi ñu ñu ko jox si wan ko ne ko kee dooloon jëm waaye foofee ci ci kaw la jëm si. loolu bëgg a xeex yow rek moo tax ñu fi ñu ko jëkkoon defal fekk na moom jëm dem rek dem rek la bëgg sama kanam loolu lépp ne maa ngi teew. dara mu tuuti. toog na fa ba am bis ku ñëw ku ñëw xam naa ñëw fa fekk digg-digg boobu yi moo tax mu dikk. yu dégul doole ji yëmbu yëmbu foofee ak wala mu ko yëmbu maanaam li nga xam ne moom la sëriñ Moussa Ka ci taw tàkk ñu ne dañu koy denc bal ak fitel waaw loolu loolu moo foofu rek waaw waaye nag mu abdu nag fekk boobu mu ñëw génn seen fii ñu ko ci moom waaw ne bon naa naa ko seet wala ko seet ko si ñëw wax ma lu fa dem dikk mu ñëwee nekk mu sama mau mau mu mu bëgg a jëloon. ñu financé ma bu financé. waaw ci suba. waaw sama ya. Ya, apa? bi bàyyi ko ca apa ànd ak ab jëlof Apa ak Apa yi xale yi. waaw xam nga bu ñu nee. waaw. ñu ñu laa leen bari bari. ànd ak gàngooram. waaw ak ci fas ñaari góor ak yàlla na suñu ma ne suñu daal boobu noo xam ne mooy mooy si suñu suñu bëggam ñu jaar waaw suñu dikkee sëñ bi waaye sama la ba ñu fi ñëw ñu ko na na tekki na tekki ci ñu waxtaan laaj ko nag boo xam ne lu yoonam ñu dafa di fekk ma fi kon fii ku ñu si rek fagal maa ngi ko ma gën a bon ci rek sori ko mu bon ci jëm. waaw fekk man mii am naa man mii wax moom seen hmm. man nag man yooyu yëpp. mënuñ ma ñu dem àndal daanaka mu tuddee waaye am àndal sax ci ci ci rek sori su dee ñëw moom it hmm. si moom. waaw bi ñëw moom daal ko daal bu mel ni bu mu daloon kale. waaw moom bi mu ko moom moom bi mu mu dem. Hmm. waaye ñu daal fii xëy nañ. dellu ak bu sëñ bi maa ngi dellu nag. waaw léegi fekk na booba yi mu gis fii. waaw moom la xalaat moom lay waxee bu demee. bu demee nag. waaw fekk na sambalaw bi amoon na ak tampon bu bu bu bu def ci lettaram mu yàq woon. waaw ñu yóbbu ko daal di ko defal rek. waaw. waaw maa wax na bu dikk foofee ñu ko defaree. waaw seen tampon yu bëri ne fa. waaw mais waaw bii ana ko moom bii waaye ana ko moom bii ana ko moom bii waa waa ngi ci bopp sambalaw bi. waaw. di ko yëg di di sàmm la loolu mooy yow naka nga defar la. ko ma gis waaye ndox pare na mu ne ko pare na da cee cee ci yu bari. fab fab ko def ko nii teg ko ci kayit bi. waaw. sànni si kayit bi rek mais ñoom ci soxla. waaw. muy muy dem ba suñu saxee ba suñu boole. waaw. mais suñu boole bu ci suba ba ci suba sax. waaw daal bind benn ngay sax. waaw. daal di wax ni man sàmm la waaw ci sëñ bi la ko bind noonu sa mbooloo bi. waaw maag sëñ Bamba. waaw yow yow borom ndar. waaw defaral ñu ñu ñëw ci yow. waaw sama mag waxoon na loolu mel nii. waaw daa fekk ne moom boobu dafa ko daw. waaw mu mu mu daa woo di la dikkal. waaw ba nga ko waxee ne ko. bi sàngam daa ñu def nangam ci ci jàkka yi jam yang ja. waaw fekk na mat na ab ab yëpp la sooy. daal defaru daal di. rëy rëy nagam ak ay seet ay seet li warul ay ay balaa yu jeex yu ne ak ak xam-xam. waaw li sakk yenn seen yi di xëy dem rek bis bu nga xam ne bu ma wax ngoon la nekk bu ñu ko ma ma ma liggéey. waaw dina dina dina la nangam. waaw wax wax ji ñanga ñanga. waaw bis boobu nii fekk na def na ba yekk. waaw kon loolu dem xëy rek. ndax di di dikk. waaw. ñu xam ak sekk bu mu ngi yaan ci guddi ga dem.

sàmm loogu. ci suuf ak ci suuf bu ñu andee rëdd bu ba. waaw jokk ci kë leetal leetal boobu rek. gis ko. waaw xam ko daal ñu ñu woo ñu ma woo waaye ñu ma a jàng su ma ko bindul. waaw. ñu jaar man sàmm daw ñu Bamba. ak njëriñ ñëpp. waaw defaral li ci woon loo ci xam na waaw loolu la loo ci xam jàpp jàpp ko jàpp ko ñu ngi suba ñu ànd ak ñoom suba ba mu yeewal ñu bàyyi ko ñooñu yëpp ànd ak benn benn gaa benn sàmm la waaw tool tool yi ñu ñu waral kon nag moom sama kanam maa fanaan waaw li suñ baax na sax waaw ñu fanaan si bëgg la waaw sëñ Thierno. ko waxu dikk. ko ne ko dañoo yéen ñu rek de. ku mu dugg ko. ñu ko ay daal di joxoon ci bëccëg boobee. ci ci bu bëccëg bi. dafa ne ko def. yonent ba soos ci àjjuma ji ak ci suba sax ñu daan wax li sew sew ñu wax ñu la leen teel suñ bu génn ci jàkka ja taxaw nañ ko waxtu war ba noppi ñu woo ma man man sëñ bi Moustapha ñun ñaar boo noo fa nekk ci biir gone te ko ci pénc ma am na ko sa garab boo xam ne sax garab la gudd gudd dañ ko gor léegi waaw wan nañ ñu ko foofu lañ taxawal boobu fa taxaw dañ taxawal sa foofu ci war dañu woon ñëw jotam ñaan ci ñaari bët. ñu ngi dénk leen yàlla maa ngi dem. dem foofee nag foofu ñu bàyyi ko woon boobee nag. waaw fekk ñu ñu foofu. waaw ñu ñu kër kër boobu nekk. waaw léegi jàng yi ñu fa demoon ba nekkoon fa. waaw te jëriñ fa mu daa mu daa yeesal noonu. waaw. bëgg bëgg dañu xam ne fa nekkoon. dana ko def. waaw. Vous pouvez maintenant, le a fini la lecture de quelques versets du Coran. Il est maintenant à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous voudrez bien lui poser. On dit au Sénégal que le calife des Mourides est le supporter numéro un du président Sangor. Or, c'est étrange, un calife musulman supporter d'un président catholique. Euh, pour euh, la politique ne se mêle pas à la religion. Il est musulman, il est le chef de la plus grande confrérie religieuse en Afrique noire, musulmane comme vous dites, et le président Senghor, évidemment, est catholique. Mais le calife euh, ne s'intéresse pas au président Senghor parce qu'il est catholique, il s'intéresse à lui surtout parce qu'il pense que dans le domaine de la conduite des affaires du pays, le président Senghor est le plus apte, le plus capable. Et pour la Hadith, les intérêts supérieurs du Sénégal sont au-dessus de toute considération. Évidemment, nous n'allons pas demander au président Senghor de diriger les affaires spirituelles des musulmans. Ce qu'on demande au président Senghor, ce n'est pas sa religion, c'est de conduire le Sénégal sur la voie du progrès, de la paix et de la liberté. Et surtout, tout cela dans le respect des valeurs traditionnelles et spirituelles. Les Les allocutions être prononcées par le chef de l'État, le secrétaire du calife et par le premier ministre de la Nigeria, avant que celui-ci ne se rende à la mosquée de Touba pour prendre part à la prière. est offert par le grand marabout L.H. Tirno Seydou Tal, dîné en l'honneur du Sardonnais de Saint-Otto et qui clôturait la visite d'un autre illustre qui est, selon le mot du président de la République, un parent et un ami. En procédant à la décoration des deux grands marabouts, Moses Avabala Maté et Cheikh Avabala Mati, le président Léopold Sédar Senghor a tenu à cette occasion à assurer les représentants du culte du soutien de l'État. Il les a encouragés à poursuivre leurs efforts en vue de l'élévation du niveau de conscience des populations et à continuer leurs tâches afin de renforcer les liens de solidarité nationale. Après avoir été félicité par les nombreuses personnalités présentes, vous me reconnaissez le président du Conseil économique et social, les dignitaires ont reçu le parchemin qui témoignent de leur nouvelle promotion.